dama koy gërëm parce que wolof dafa wax ne feccu liir bu neexee fekk na nday ja moo teye sa mbagayo li ñuy liggéey ñun ñi ko gis am na ñu ñu siy dooleel waaw waaw waaw waaw waaw waaw. madame la président ñu ngi lay euh, remercier bu baax. sa taxawaay sell na. mooy taxawaay dans la sincérité. dans une efficacité discrète. bugguloo sax xam. li ngay jàpp ci suuf. di ko impulser ñu koy dérouler sur terrain ñu ngi lay remercier bu baax. monsieur le président. maître Sey moom ci liste bi la nekk moom bés bu ñu jëlee la ville de Dakar te dañ koy jël au soir du 23 janvier 2022 il sera dans le conseil municipal de ville taxaw fa pour Dakar mais ci biir Dakar taxaw fa pour Grand Yoff maître ñu ngi lay euh, nuyu di la jox nuyoowu Grand Yoff yëpp may euh, gàttal di nuyu ñëpp kulim juum ñooñu ma tudd nañ ma joxal nuyoo bi ñëpp mais dama bëgg a ñëw si notre camarade Cheikh Bakhoum yéen waa Grand Yoff ngeen tànn ko yéen waa Grand Yoff ngeen war ko fal le 23 janvier 2022 ma leen di wax ne. commune affaire compétition la loolu la wax compétition des territoires yéen waa Grand Yoff kenn waru raw ci Dakar yéen waa Grand Yoff yéenay dégg ñu ne ki gañ Grand Yoff gañ Dakar bon dëgg waroo leen ci résultat mais bu ngeen jëlee seen commune jox kooku jàngul jox kooku amul parcours. jox ko ko amul projet yaakaar naa ne loolu méngoowul ak ambition wu Grand Yoff notre ami Cheikh Bakhoum bés bu ngeen ko joxoo seen commune bu ngeen dawalee at di ngeen xam ne entre moom ak ki ko yor wuute na lool may wax ne ñoom nag xam nañ ne defar seen dossier yi préparer passation de service moo leen dese d'ailleurs ku dégg seen message yi ci ñaari fan yi xam nga ne am na lu seen yaram yëg ñaari fan yi boo leen déggee am na si ku ne moom faalewul préfet faalewul gouverneur faalewul sénat faalewul résultat wu élection yi moom prison la bëgg dem mais madame la présidente wax na ko léegi nous sommes dans un état sérieux nous sommes dans une république solide am na loo xamante ne ay waxu kasaw kasaw la rek incha allah les populations de Dakar au soir du 23 janvier vont avoir comme maire de la ville un monsieur qui s'appelle Abdoulaye Diouf Mais à Grand Yoff, les populations de Grand Yoff vont choisir un monsieur qui s'appelle Cheikh Bakhoum ñun ñaar nag ñooy ànd pour defar Dakar bu bees mais pour indi la grand yokkute ici à Grand Yoff may terminer nag par un conseil match bi jeex na ba pare lan la ñuy xaar mooy court sifflet final bi mais match bi yàpp a plus match dama leen di demander nag ngeen teel a jog jog leen teel bëgg naa à 9 ñu ne ñun suñu militants yépp ak ñi ñuy soutenir ñépp ci Sénégal voté nañ parce que boo déggee seen panik nga xam ne am na peut-être lu ñu nar ci intimidation électorale bi. mais nu ne nous laisserons pas faire dañ leen di demander ngeen am sérénité dara dara dara du xew danañu voté ci jàmm féete suñu victoire ci jàmm ma leen di wax waa Grand Yoff loolu nag Cheikh c'est une promesse que je vais faire xaw ma waa Yoff danañ ko nangu am déet bu ñu gagné au soir du 23 à minuit je serai à Grand Yoff avec mon ami et frère Cheikh pour fêter la victoire de Dakar et de Grand Yoff maa ngi leen di